ayca jërëjëf euh, Abdoulaye Diop euh, l'homme passe partout ah jërëjëf euh, Yacine Pouy ah jërëjëf baat nga ni. bi dafa am ñu mu neexul ci kër gi. kan ci technicien yi wala technicien yeeg bari nañ. mooy nan doxal rek nan dem rek nañ muñu rek. ayca <laughs> nañ dem salaamaaleykum yi nga xam ni. ñu ngi déglu maa ngi leen bu baax baan yow euh, ñëwaguma la sax nga anticiper mais maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar fekk mer mi rek. Mm. Euh, ñu ngi lay ziar bu baax di ziar Ndiaye di ziar yi ñëpp képp koo xam ne xalaat saf na la rek ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm ku xalaat saful nag moom ah, yàlla nga am tuuti jàmm. waaw <laughs> Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax. Ababacar mm-hmm. ah. Camara. Mhm. jaay jaay ku baax nga. da def njaay waaw ku maandu nga. dëgg la de ku nitu jàmm nga. dëgg la de. man de li xew tey. Ah, ku mbaax nga ku maandu nga nitu jàmm. man de li waa Sénégal aussi. <laughs> man de li xew tey ba nga may waxal li bëgg naa koo xam. en tout cas nitu dëgg rek. <laughs> ñu ngi ñu ngi kontaan ci ñëpp da ngay da ngay ànd ak ñun wala. Euh, euh, grand ñu dem. Euh, ça va. oui grand oui non ça va bien ça va alhamdulilah. may ma ma nuyu partenaires yi. ayca. doore ak Wave. sa xaalis yaay borom waa Wave loolu la ñu wax. Mhm. ak euh, compte mobile bi nga xam ne daf lay yombalal lépp ci sa àdduna ci sa wàllu transfert d'argent. booy déposé wala ngay def retrait amul benn frais booy fay frais transfert d'argent yi ci Wave mi ngi toll ci 1 pour cent. Mhm. un pour cent ci li ngay déposé loolu yomb na ci gàttal. bu fekkente ne maanaam cinq la 50 francs la bu dee dix mille francs bu dee ba cent mille sax. Euh, frais yi mi ngi 1000 francs loolu la Wave indi. Mm. nga mën a fay say facture moo xam senelek sen rapide. Rapido lu ci mën di doon euh, ba ci euh, donation Touba ca kanam wala participer travaux d'achèvement bu grande mosquée bu Tivaouane. Mm-hmm. mën nga koo jaar ci Wave jënd crédit téléphone ci Wave ak opérateur boo mën di transfert international ak euh, lu aju ci transfert madame Nek bitim Reu, fu France Italie Espagne États-Unis di fille à xaalis Sénégal ci est amul benn frais. yoy la mën a wax tay ci Wave xam nga Wave mom yu bax yi ci nek boko ko wax la ñuy la mm-hmm. partenaire ci maudit modi SIPEX société industrielle papeterie express du Sénégal yi ñu andil kay espoir. modique mm-hmm. kay yi nit ñi wék yaakar ju mat seuk ndax yu bax ya ca nek SIPEX mm-hmm. ñom ñokoy koy entreprise la bo ay sénégalais ñoo ci à 100 pour cent kay espoir kay gën ci kay kay yi mën ci kay kay nga xamantene ji. Mhm. mom la parent d'élèves yeeg élèves yeeg euh, ñëpp di wër moy SIPEX. Mhm. ñokoy koy kay espoir LPM Bourguiba dañ ko fay jaay LPM Sandaga bu Tilen, tilen euh, LPM Kaolack Amnafa. fa. Hello partenaire nek fi en face université Cheikh Anta Diop fofu mom lo bëgg ci walu fourniture amna fa. 77 633 21 24 77 922 26 53 ngeen di jokkoo ak ñom Sabu faniko benen partenaire la Sabu bi nga xamantene ji gaaw na xëpp day xéñ lu neex mëna sétal setal bu mag amna bu ndaw koku moy euh, faniko mm, conservation bu jaar ci yoon amna hygiène amna na qualité te dafa garantir mhm. ak euh, comptoir commercial de plomberie du Sénégal mm. spécialiste ci walu sanitaire irrigation <laughs> amuñu ci amu yamuñu ci kenn dañ lay jaay ba paré garantir la ko yii mois yee ci des vingt mois comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñom ñoy spécialiste ci walu sanitaire ni mako waxe ñinga feulé nga fële ji modi rue Valmy angle Diouf rue Florus angle Grasland am nañu fa place rue Tolbiac angle Feder am nañu fa place ngir léral yu yaatu jëm ci comptoir commercial de plomberie du Sénégal ak yu bax yi mu leen andil da ngeen leen di ci 33 821 14 80 wala 77 517 98 29 wala 77 401 55 69. jeex na am na solo. Euh, jaajëf jaay li nga wax lépp dëgg la. maa ngi gërëm waa xelkam euh, accessoire. kenn du ñoom sama gars yi ñoom ab ak ñoom laay ah, ñu baax du ñu du ñu sponsor nag samay waay lañ. say xarit ak suñuy waay lañ. xam nga man fi ne loo dégg xelkom rek génne ca day jafe. suñuy waay lañ. Euh, accessoire yeeg yëpp waa tarkalla ñoom ñoo ci mën mais nag Ndiaye li nga wax dëgg la ci waaj yi. ku ñàkk maanoo ngi ni toog. kaasu café la ko lom passe jox am joxal abaa. mu guux ci guux bu rëy su ma ko jox xam nga loolu ci ñàkk maanu la bokk. ndox du romb pax ok ñu ngi jégalu ban ça dépend ci inondation yi <laughs> ak yan ndox la. kay ah. may nuyu Xadijat Seydi. Mhm. yoon ko ñaari femmes lañ yoo xam ña nga fële ci Amérique. Euh, xalaas gi ñoom dañuy dund xalaas gi ñiy dund xalaas gi daal te bëgg ko maa ngi leen di nuyu. baan Amérique moom Aminata Seydi ak Xadijatu Seydi. baan Amérique moom yaa ngi Njaay bu ngeen fa eggoon. Euh, foog naa ni bu ngeen amul courage loolu du ngeen ñëwaat fii. Ah. di ngeen fa gis ñu leen bëgg ba ngeen tiit seen bopp ah. parce que man damaa dem Amérique euh, nu am nu ñu mel ci man mais fu ma romb rek hmm. ñu waxul Njaay hmm. wax baan hmm. ah. équipe bi daal équipe bi c'est que léeg lañ laal bëgg xamal de Njaay ndoy baa mu muñ suba teel ki de déglu force te ay diriyanke nag ñu bari ñu bari ñu bari ci man <laughs> neexu ma mu daayal passeport neexu ma muñu. déedéet di neexu. Kumba ngi déglu de waaye. déedéet Riyaanke yi ma laaj ana Ndiaye. waaw jël nga seen numéro. ana Mari Bari Baan Riyaanke yi ma laaj ana Baan. ah moom xaw man damaa man moom. man moom xaw ma xaw nekk tuuti booy. ma. ñooñu <laughs> de say grand <laughs> say ngeen ko grand yaa nga fa. parce que ah grand yaa nga fa de. mais nag neexu ñu ne tax de nuyu nuyu baa nu suba teel neexutu muñ de. Hmm. soo ko dégluwul heure bii soo yeewoo li ngay njëkk a def mooy dugg ci YouTube bi. am na benn femme moom bu moom. Hmm. am na benn femme bu ma topp moom. topp ma ci ñoom moom dañoo mën a ñoom ñoom moom dañoo mën. Ndiaye ak danoo mën topp ma ci danoo mën gi ba xam naa ba may sori mu ne ma waaw danoo mën a xalaas loolu waay mën nañoo xalaas moom. <laughs> démb maa ngi la doon wax kaawu ndaw soosu nga xam ne ku ko romb ree ko rek. Mhm. mun na la mun la kaay mujj nag ba mu xamee ba xam ne xajutul ci dëkk mu daw dem Mauritanie. Mhm. déglu ko. ma di ko def ma di ko def feet bi di ma metti may joy fu ma toll di ko joy di ko nakalu ba yàgg ma jóge fi dem Mauritanie affaire boobu topp ma rek ma di ko def ba ni ma ñibbi si waate affaire bi topp ma mais terewul maa ngi dem ci sëriñ di ñaanlu di sangutu lu ne ma di ko def même dama daan dem ba bu ma demul ci góor ñi sax damay tëdd di fawee sama bopp yàlla xam na ko billahi wallahi wa taalaahi boole ko xol bu tàng may jooy fa ma toll mu naqare ma mais may góorgóorlu aw oh, ma dara mais sangutu di seetlu di dem ci maaman yi di sangutu di seetlu ñu ma koy wax ñu naan ma liggéey moo ko door lépp lu la daal rek liggéey moo ko door liggéey dañ daal liggéey def la loo xamante ne rek dangay ngay continuer def loolu mais may may rek sëy naa ñaari yoon nag mais sëy bi ci nekk ay weer la am tas genre ngelaw daal moo ma solo sonal ma sonal ma trop sax fu ne man dugg naa fa tamit feebar boobu daal moo des sama yaram ak genre loo xam ne damaa mënumaa am dara tey jii ma demoon tam nekk ci di faju wala may def dara sax bu yàggee damay dem ba loolu la ma doon fortaat sax dootuma ko amati ma ne waa tucc ne comme genre ngelaw fi mu ne nii sama bëñ yeeg sama nopp yeeg sama bëñ yaa ngi wadd par benn su ma ñëwoon ba nga jàkkaarloo moom danga naa ma déedéet mosoon naa fi ñëw nag daaw mosoon naa fi ñëw daaw comme li ma la wax léegi noonu la demee waa boobu ba léegi nag tamit tooguma ba léegi nii tooguma fune ne ngi fay dug di sakku tok di di ñaanlu affaire bobu arrêté na mais fièvre bi mo ci dess moo ma sama poj boo gisse sama poj dafa melna ay bal yu ñu ëf sama poj dafa melna bal bu ñu pompé légui na sama yaram bi day raf di dox affaire bi day dox ma di ko yépp mi ngi dox sama yaram bi ba ci bop bi ci ni ni ni tay ni may wax ak yow tay ni ay bañ yu metti la ma def bañ bi metti ak nopi lolu ba légui man mo upp sama bop man mo ne ci sama bop nak ma di ko xalaat xalaat boo xamante ne damay xalaat sax ëllëg mu indil ma dara ndax dafa ne daf ma daf ma traumatisé daal daf ma traumatisé parce que affaire bi daf maa jaaxal nu affaire bi mën a amee te man xawma ko xawma kan la bu man bu ma mën a continuer noonu di ko def bu yàlla def ma am ci doom te mënu ma la ne kii moo njëkk ci man man loolu moo ma jaaxal affaire bi daf ma traumatisé parce que day jékki-jékki ñëw ci sama bopp daal mu jaxas jaxase ma ba ma bu ma ku guddi du ma nelaw bi may dem Mourten nag loolu doon sama intention sama intention moo doon dem pour liggéey mais comme samay bunt yëpp dañu tëju woon mënu ma woon daal am dara wala ma liggéey ba am dara noonu la woon tamit bu ma amee copain rek bàyyi ma ma dem te noonu rek laa doon dundee te noonu laa doon dundee léegi dama bëgg ku ma dimbale ci wàllu gynécologue wala sëriñ bu ma mën a faj wala yu mel noonu parce que en général tamit bu ma demee ba commencé faju rek. feebar bi yëngatuwaat te duma xam nu mu demee góor ñi dañ ma doon fowe dañ ma doon fowe dëggantaan sax di ma fowe di ma fowe bu baax di ma loolu laa bëgg ko ma ci dimbali ah ma faju sama feebar wér wala ma mën a liggéey mënal sama bopp dara waaw loolu daal laa bëgg mën a dimbali sama doom muy wut ndimbal nag waaw waaw noonu la ne nag yàlla ku ko yàlla teggil bu baax parce que li ko daal metti na waaye nag lii lépp conséquence joxe sa doom la rek jur doom doom daal soo ko mënta yor nga bàyyi jur man munuma man c'est ma ñan ñoo ma def problème nga xëy une semaine un mois deux mois gisoo sa doom xamoo muy xamoo ci man ñoo ñu man ñoo man man ah jël dom joxe ko mais dañuy joxe léegi seen doom yi mel nii daal koy joxe ak jur ah. léegi day moom. yii lay jur nag. li mu bëgg daal mooy ñu boole ko ak ñu ko toppatoo. Mm-hmm. muy ku mën a ñaan. waaw wala ku mën faj wala génico nee na sax day ko bëgg ñu boole ko benn génico. voilà ñi nga xamante ne jii noo ñu ngi koy dégg. waaw te di ay ndaw. Mm-hmm. jéng bëgg a jëm ci situation bii nañu xam ne fii la leen jëmee. surtout. yàgg yàgg da moom wax na pour nettali li ko dal mais ñi nga xamante ne mën nañ koo dund. Mhm. nañu ko moytu. Mhm. buñ def fu mu yombee rek ñu joxe ko. Mm. ay message la de message bu foor la maire bi bàyyi. ay conséquences la rek. day jeex de. Hmm? jànq bi. walla jànq bi. wala liir bi. jànq bi jeeg bi maire bi. suis 20 ans. new bi ci ko mm. ci jigen carrière am dafa ndaw. Mm-hmm. dafa moment bo xamni sa carrière mi ngi jax entre 18 ans jàpp 30 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. jamono ans. jigéen doole ans? am yegg 30 ans ñoo xamni tarkal euh, fiñ a ay. Euh, exemple. exemple ah? jox ma ci exemple. ya awaji mi nekk Kakata exemple la ci biir exemple yi. am na 30 ans. maa jaxumpa bi nek même bu ko amul mu ngi koy. waaj jege xam na 30 ans kay buñ ko xasee ba jege. fin de carrière la xale yenn saa yi nga nga xool ci xale yu am 30 ans yoo xam ni euh, saa waay mm. du fin de carrière 30 ans di xale. ay mm. waaw oui ah oui ah oui xale yaa ngi ah. waaw ah xale yaa ngi kaas. bi nekk seen TV. maa jaxumpa moom. diggante boobu nag Yacine Pouy. Yassine ay 29 xana 20 ay 28 yoy la non non 30 ans 30 ans ci une fin de carrière la fin de carrière non 30 ans ayou ndjay lo way fin de carrière xolat nen dem tu ni commencé guñu ñen ci en tout cas dal 30 ans mom digënté bob ku ci foyé ku ci fof après dal xolal nen nen 18 ba 27 ans d'accord na mais ndjay 3 ans bo ci amé topoto ba 4 mais ndjay ba 40 ans sax man hein ba 50 ans ah waaw mais mais Ndiaye tamit looy fin de carrière Sénégal c'est que c'est nag dama koy faral di wax fii Sénégal 40 ans ngay am fii nekk góor wala jigéen 40 ñu naan la xale nga ba léegi naan la jeune nga 40 ans du jeune ñeen fukki at. non non non ñeen fukki at moom nekkatoo. mais fii Sénégal ngay gis 40 mais c'est que ngay yéex am liggéey. fii da ngay toog 30 ans 35 ans doog am liggéey am liggéey 5 ans am 40 ans. ban ñoo tax ñu naan ay lii ay si ñu ñàkk jom la am nga doo jeune de. yii ma lay wax nii ay si ñu ñàkk jom la. ay nga gis nit muy liggéey ngay liggéey nga ne ko ñaata at nga am mu ne la nangam nga ne ko ii yaa ma mag foofu loolu ay si ñu ku ñàkk jom la. Hmm? nit boo amee jom amul ay yaa ma mag ak yaa ma lii. c'est que yaa ma mag. waaw moo la mag waaw. ay yooyu si li ma leen wax la grandeur de l'homme. waaw loolu si ñu ku ñàkk jom la. pour parce que soo nekkoon ne mag mooy yow amaan nga temps pour am loo réalisé waat te pourtant temps amul. temps amul de du ñàkk jom sax sa bopp la. ah oui yaa ma mag yow yow yaa ma man xale la. sama wax sama sama wax jëlaay waxaat rek. c'est quoi booy yéen nit ñi da nga ci gis ñu am soxna am doom naan non xale la xale <laughs> amul de. 40 ans jur nga doom ju sëy. xale amul de. nga jur doom ju sëy ba pare naan jeune nga. nan avancé yow fu ñu jëm jeune dina jur ku ku kii. nga kii la. <laughs> kii ndax jeune dina jur jeune. jeune soo juree jeune kay nekkatoo jeune. tu es déclassé. ah oui. jeune dina am sët. <laughs> ah, ah waaw mos xaram ba jur kuy mos xorom kay nga war a retraité. ay ayca ayca ayca ayca. kii yaayam looy xuloo <laughs> déglul kii Ndiaye. kii c'est important. daal sama yaay laa amulul jàmm aw maag moom salaam su ma toogee sama yaay day mel ni sama xol bi lan ma génneel damay mer su waxee jàmm histoire la affaire bi yëpp moom man ci man la xam naa ni mais du ci moom bu may wax ak moom day mel ni damay gis sama butit yi damay am lu ma naqari su may wax ak moom su ma tëddee sama néeg affaire bi daf may naqari damay jooy su ma wéetee loolu damay metti parce que man bugguma lenn lu dul juboo sama yaay sama yaay rek laa bëgg jubal sama àdduna du leneen te avant mësul mel nii am na da ngay dem des fois ci ci sëriñ yi moom nee na dañ koy wax des fois dañ leen a dañ leen a dëddali am ñuy wax faru la nii da daal ñu faru la mais lu mu si mën a doon daal maa ngi ñaan ngeen jàppale ma rek ma jubóog sama yaay rek laa bëgg loolu rek parce que des fois damay wax sax damay dem bay saaka affaire bi daf may touché tellement ma lan la nag mais affaire bi daf ma metti metti na ma trop metti na ma lool sax mënu ma koo wax kenn doo ko mën a wax kenn sama yaay des fois dañuy waxtaan ma ne ko lii xaw ma lan la lu ma metti lu ma metti trop sax ma jubóog maire bi rek man loolu rek laa bëgg am na nee na am na ñu demoon ci yenn sëriñ yi dañ koy wax naan kan faru la mais bu ko fajul mën na sax dem ba jëkkër du ko am am na ñoo xam ne dañ koy wax dëddaale la man xaw ma nag yàlla moo xam su may wax ak moom du may wax du ma ko faale bu wax du ma ko tontu bu may wax ak man du ma ko tontu du ko faale daal et puis ma ko dara après nag su ma wéetee affaire bi dafa may metti loolu affaire bu ma metti bu ma naqari boo xam te ni ma sa sañoon ngeen jàppale ma ci surtout yow parce que dafa amoon benn xale bu jigéen bu doon expliquer benn histoire après nag. mani pourquoi pas ma wax la ko parce que affaire bi metti na ma trop metti na ma lool sax sama yaay bu may wax ak moom day mel ni sama xol bi lay gis ah, yàlla ci yàlla musal yàlla ci yàlla musal de dëkk ak sa yaay tam ak moom jàmm yàlla ci yàlla musal njaay mi ngi ci problème de waaw léegi lu koy lijjanti ah mi ngi noonu de xam nga ci ah nee neen daal moog yaay ji dem nañ fu ne ñu naan ko rab laag lii laag yu kenn xamul mais daal moog yaay ji moom nee na heure bu jàkkaarloog yaay ji yaay di di wax day jéppi yaay ji da koy bañ maanaam da koy tontu di defanteek moom après su demee ba affaire di calme day tëju di jooy du xamul lan la. xam naa ko góor koo xam ne papaam lay bañ a gis. waaw gis nga. Hmm? mun laa wax lu ko papa ji def. yéeme na de yéeme na de yéeme na Njaay kii nee na moom dafa bëgg jëkkër. waaye moom li ma jaaxal nee naa ko nag bon soo leen dégloo man am na lu ma dégg ci wax ji loo xam ne pour man jàpp naa ni lool moom su ko defee dina am jëkkër. Hmm. peut-être man peut-être man man xam nga man man xam nga man xam man wéeru man waxi dof rek laay wax waaye xëy na ndax xëy na ndax man tamit doo waxi dof yi yenn saa yi mu am lu mu réglé. Hmm. mais déglu élément bi. dama amoon benn problème man nag damay dund lu metti ay at nag du benn at du ay ati at mi ngi chaque jour lu am rek damay jiital suñu borom waaye dafa toll moment boo xamante ne xëy na yàlla moo dogal sama gémmiñ ji doo ko mën a ubbeeku ci loolu ndax xaw ma woon di sax rab la pour man rek affaire jigéen la affaire góor maanaam xuloo guddi ak bëccëg mais ñi ma daan faj daaw ñu ma wax rab la dañ may wax fajul rek lii moo lay gàllankoor lii moo lay gàllankoor fajul fajul sama ndigg li daa fees de ak tiire ndax man dama fonk ku mën a defal lii dama koy def dama ko fonk waaye nag fi mu ne nii lii jot daa jot ginnaaw dee boobu léegi maa ngi toog mënuma am ci kër te temps bi mi ngi dem te temps bi xaaru kenn ñëpp dañuy foog ne yow yaa bëggul sëy te nit ku nekk boo sañoon am na âge boo xam ne boo ci tolloo rek di nga am jëkkër ba am ay doom ndax loolu la ñëpp di ñaan yàlla waajur bu nekk aussi loolu lay ñaanal doomam man nag instant yi dama sonn te yàlla rek tax faj te yàlla rek tax ma am jëkkër nag dépassé naa ko sax doonatuma xale bu ndaw dépassé naa ko bu yàgg ma bëggoon nag ko ma ci jàppale te yàlla rek tax bëgg naa tamit góor gu am yërmande ndax yërmande mooy lépp ndax mënuma relation bu ma am ba def ci sama yaakaar mu deñ relation du benn du ñaar du ñett du ñeent mënuma ko sax lim damaa jooy jooy jooy ba nëratuma nit euh, jooy yi nag du question ko li ma perte ko góor gi affaire bi ni muy amee moo lay tiital mu lay dépassé te nit ku nekk tamit nit nga nit ku nekk nit nga mel naa ni mu ramel a mel mais daa gàllankoor boobu rek may sama problème damay tëdd bu guddi ma jub toog jooy ba sama xol sedd ma tëddaat maa ngi sant yàlla nag bu wér ndax yàlla ma ko teg du loo xam ne mën naa ko teg sama bopp du loo xam ne maa ko teg sama bopp maa ngi sant yàlla nag bu wér waaye ku ma ci mën a jàppale te yàlla rek tax mu denc ci man ba set ma am jëkkër ba am ay doom ndax dépassé naa fu may amee jëkkër dépassé naa ko te passé mako sax te biru suñu borom la astaghfirullah lim ko wax maa jéggalu miru suñu borom la sama bité bu waree fenk rek day dem kenn mënu ci dara waye nak dama bëgg ma ci jappalé ñaanal ma dindil mako ci man bam set ma am borom kër bu gën ci man ku ñew baax na nga baax rek te gën ci man man tamit ma gën ci yow li da lay sakku ku ci jappalé te yalla rek tax waaw xamna ku jaxlé nak ci yeen lay ñu léegi yow loo dégg ci wax ci nga ne. yow loo dégg. non mu ngi ci problème amatul espoir. ñëw laajal gars yi ci Facebook bi lu dégg ci wax ji man ndax li ma dégg dégg dañ ko li ko tere am jëkkër man pour man. Hmm. pour man sama xalaat. Hmm. wax na ko. mooy lan ah, xamu ndax nit ñi bàyyi nañ ci xelam déet. ah bu dee bàyyi nga ci xel teg ñu koy wax rek parce que man fii gisuma kenn ku fi bind loolu de. ndigam lépp ay téere la wax. nee na ndigg li lépp ay téere la abaa di nga dem ci xale bu jigéen xool ko gis ndigg lépp ay téere la nga koy takk waaye bu su dee bëree lay takki téere bu bëree téere da koy tege ne waaye dem am benn gel toog ma gis ndigg li ko xaw ndigg li ba ci ba lépp ay ndomba kan moo lax bu copain bi di ñëw du tekki ah xaw ma dee dee dee xaw ma téere yi ah, su koy tekki di am jëkkër lu leer laa la wax da nga rek ah sama benn benn affaire daal laa sama xala sama xala. moom euh, na ko na ko na ko jigéen teg ci suuf. Ya, na ma jox bu baax bu yéwén bu fidèle bu rafet. yooyu amul moom. yooyu yëpp mënut a daje ci benn boo ko bëggee ñeenti ah? góor ci nit ci nit lan lan bu fidèle. waaw góor bu yaatu. waaw góor bu rafet. waaw bu am yërmande. waaw ñeenti yi boo ci ngay wut wax nga wax nga dëgg parce que maa ngi nii maa man man man ku ma am am jëkkër ju baax te maa gën a ñaaw ci réew. benn ngi noonu <laughs> waaye moom moom moom moom moom moom jigéen moom. teral defar ba mu baax. mais maa gën a ñaaw ci réew mi da nga ne ndoy baani fajar neexut a muñ. neexut a muñ juum. waaw yombut a muñ. waaw yombul de. ok waay. xëy suba rek déglu déglu woon ndoy baax. Ah, déglu nga wax. déglu ko fii ci ah, rajo. waaw ah, lu lu leer la wax. Sénégal ba Sénégal ba Sénégal daj. Ah, Sénégal gépp ak Sénégal yenn bitim réew. suñu xëyee ñoom ñëpp dañuy déglu xalaas. te man xalaas gi dama ko dabee rek am na ko ma koy xasee fii ci ci Facebook bi ne ma yow. yow dégluwuñ la xalaas la ñuy déglu. Mm-hmm. waaw man dama ko fee fekk rek. waaye de ku li naan ku. ma ne Baye Diouf ñëwee la kër 86 fay. jàpp ko foofu El Hadj Diouf. waaw mu ñëw équipe nationale. waaw la keer 86 fay. Ah. ko yow nga dabeek. nga départ nga fini la yam. neexuma mu muñ nag de. am déet ah non ah, mu may jay. <laughs>